fi tey ànd ak ASEPEX ak CICES ñëw fii nga xam ne mooy foire internationale de Dakar ci li nga xam ne mooy euh, journée du Sénégal journée du Sénégal bés la boo xam ne foire bi da ko jageel suñu réew ñu fexe ci bés bi euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy producteur locaux yi ñi nga xam ne ñoom ñooy inventeurs yi ñi nga xam ne ñoom ñooy producteurs yi nekk ci gox ak goxaan ñoom ñëpp ñu dajale leen maa ngi félicité ASEPEX maanaam la directrice générale Zahra Iyane Thiam DG CICES ndaxte baax na lu mel ni bu amee foo romb rek gis ku jógee ci benn région wu Sénégal ndaxte day tax ku ne xam ne ci la bokk ci lañ ko boole président Macky Sall dafa wax un Sénégal de tous un Sénégal pour tous mooy Sénégal bu ñëpp bokk waaye Sénégal tamit buy jëriñ ñëpp loolu gis nañ ko fi. gis nañ tamit ne producteur sénégalais yi entrepreneurs yi artisans yi jàmbaar lañ ndaxte ñu ngi góorgóorlu. moyen bu demeewul noonu it état bi mi ngi teg ay dispositif moo xam ci financement la moo xam ci garantie la moo xam par exemple ci accompagnement moo xam ci mise à niveau ci formation te wax dëgg yàlla ku gis anam bi ñuy liggéeyee qualité produit yi ñuy def innovation yi ci am nga xam ne li leen état du Sénégal defal am na solo bëri na ñoo xam ne COSEC moo leen fayal seen exposition bëri na ñoo xam ne ASEPEX moo leen fayal seen exposition bëri na ñoo xam ne port autonome de Dakar moo leen jàppale yu demee noonu donc baax na ñu koy fàttali ndaxte boo fi nekkee waroon nga fay ay charge mais am ñu ko jël en charge ngir jàppale la yenn saa ay communes yi yenn saa ay département yi donc ñu jaajëfal leen ci loolu leneen li mooy taxawaay bi nga xamante ne moom lañu ñu am diggante ASEPEX ak CICES ñoom ñëpp di liggéeyal Sénégal état du Sénégal ñoom ñëpp di taxawu liggéeykat yi jaaykat yi entreprise yi bu ko defee ñoom ñëpp ku ci ne li ngay def ñu mën ko mettre en valeur boo buggee exposé bitim réew nga exposé bitim réew boo amee problème mu am foo koy amee boo amee problème tamit mooy euh, maa nga am foo ko mën a jooyee waaye tamit at mu jot ñu may la fii ci foire bi nga mën a ñëw exposé réew mi yëpp di fi daje nit ñi di jóge bitim réew di ñëw di gis di xam doomu Sénégal lan la ñuy liggéey naka lañ ko mënee fan la ñuy jaar ba liggéey bi di dox laaj nga ma tamit ci li nga xam ne mooy marché ceeb bi euh, Inde arrêté wul di jaay ceebam Sénégal dafa wàññi ceebam bi muy jaay bitim réew waaye dëkk yi ci mel ni Sénégal nga xam ne yàlla dafa def président Macky Sall am ak ñoom relation yu baax Sénégal am ak ñoom relation yu baax defal nañu li ñuy wax dérogation maanaam xaas la boo xam ne privilège la Sénégal am 500000 tonnes tous les 6 mois 500000 tonnes yooyu nag répartir nañ ko suñu importateur donc loolu nag boo ko seetloo euh, mën na am jafe-jafe ci marché bi ndaxte diggante bi ñu lay ak bi ngay jot ceeb bi. yenn saa yi dina def diir par exemple autorisé nañu mais mën na am bato ceeb yi jóge Inde yi gën a ñëw mars la donc mën na am décalage boobu dina tax yeneen ceeb mooy gën a bëri Sénégal lu mel ni ceeb bu jóge Amérique Brésil ceeb bu jóge Pakistan ceeb bu jóge euh, fi nga xam ne mooy Thaïlande ak ceeb bu jóge Vietnam ñoom nag ñoo ri brisé bële yëpp ay brisé ordinaire lañu ñoo bokk li nga xam ne mooy variété mais njëg yi bokkul ndaxte Inde li muy defar ci ceeb di ko bay dafa bëri ba nga xam ne njëgam moo gën a yomb moo tax ñu taamu ko ñii nag seen ceeb baax na waaye comme bëriwul njëg bi day gën a cher état du Sénégal nag mi ngi liggéey ci loolu ngir ceeb bi jàppandi bañ a bañ a bañ bañ a ñàkk ndaxte crise bi ni mu amee ci année deux mille vingt deux ak deux mille vingt trois gis ngeen ko état du Sénégal day bàyyi droit du douane am ci produit yu bëri day bàyyi taxes yéeg impôts yi ci produit yu bëri mën nañ tënk rek ci wàllu ceeb ak ci wàllu farine bi nga xam ne moom la ñuy defaree mburu état du Sénégal daanaka fay na soixante milliards. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy defar farine mooy meunier yi ngir njëgu mburu bañ a yokk du dëgg bu ñu toppoon tendance bi nga xam ne moom mooy njëgu farine bi fi mu toll tey mburu dina jar juróom benn fukk ak juróom du dëgg mais président Macky Sall fexe ba ñu def subvention bi ba mburu di jar fanweer ak juróom bañ a bougé gis ngeen ne njëgu électricité sax bi mu yokkoo boulanger yi nee nañ waxoon nañ ne bëgg nañ mburu yokk mais waxtaan nañoo ak ñoom wax leen fan la leen état di jàppale ba tax njëgu mburu warul yokk ceeb bi tamit ci àdduna bi foo dem dëkk yi ñu wër boo demee bugguma leen tudd mais am na ñoo xamante ne téeméer bu ñaar manqué ñaar maanaam juróom-ñeent fukk la kilo bi di jar mais gis ngeen ne Sénégal ba léegi kilo ceeb bi bii jóge Inde eggagul euh, weesoogul juróom-ñaar fukk mooy trois cent cinquante cent cinquante loolu nag li ko waral mooy effort bi état du Sénégal di def ci droit de douane yi ci impôts yi taxes yi ak ci li nga xam ne mooy subvention bi donc ñu gën a góorgóorlu gën a taxaw ni ko président waxee ngir sénégalais bi ba a yëg euh, jamono ji ni méttee donte nag mën mënta ñàkk ndaxte àdduna bi yëpp ko yëgandoo mais ñu def effort ba ku ci ne yërmande bi état am di ko teg nga mën ci bénéficier.